jasaaka yaa xillu ibrahima mawlaaka xayral jasa wa muna daaray kawlaaka fëhlam bi annaka indi soori dan abadan wasakarib uka fi dunya wa faddum ala sidqi wal ixlaasi mutawhidan fii sirri wal jëri kay tanuma sa yaaka faddu ala sidqi wal ixlaasi mujtahidan fii sirri wal jëri kay tanuma sa yaaka yaakaar ju dul tas da yaakaar ku yaakaaru Seex Bàmba mooy kiñ fi yaakaar moo fi yaakaaru yaakaar ju dul tas da yaakaar ku yaakaaru seexul xaddim lañ fi yaakaar moo fi yaakaar wa yawma bis banu naa yowmal xiyaami ndaxam misaal mi feeñ na ci duniyaa kenn du muxtaaru moom rek mooy ki si lislaam ci ji jamono notal na lislaam ña doon bañ moo di xëxër ñun ñëpp santan war juddu gën ci juddu maam yaag suñuy bàyyi dañoo fekkoon ñu yaakaaru deret la tuurul demul nit alkewul du mbiram kënoon ga xalimaam moo dàq fu jaaru tuurul deret demul nit alkewul du mbiram kënoon ga xalimaam moo dàq fu jaaru aarif xam nañ ne doo seen nawle feeg fa nu jëm yamal xiyaam bañ la séenee ñëpp a farwaaru way kan ya daa way na bi say way a tax ñu we bisub keroog say bayit ñooy jolle takraaru aljanna say xasida fay mbégte moom la jigéen ña la jaloon di sikar bul weddi bakkaaru keroog la rilwaan tijjil seex bàmba aljana ya mali tëj mboole seen wuntam ya diinaaru lam wax la kenn mus la wax jëf la kenn jëful kon moo yeyoo am lu dee fulaan fa jabbaaru lam wax la kenn mus wax lam jëf la kenn jëful kon mooyeyoo am lu di fu naam fa jabbaaru lislaam ji moo ko fi yeesal ñépp ngi julli tey delloo ku njukkalawar ngir moo di jàmbaaru al yawma akmaltu lakum diine yow la waxal ngir yaa fi feddali diine ileehi xaraaru nasir nga boole xadiir buur yàlla moo la ko may amoo morom noon yi xam nañ yaa di xëhëru yamaamata xandax xaybar ak bëdërin seen faya yow lan ko jox ngay fay ku njàmbaaru sunu njaboot ak ñun ñëpp ak waajur yi ak lu ma def nañ ko addiya ngir yéen rek jàmbaaru billaahi wallaahi law laa sàkka seexu ndagam xamtil fu ñuy jëm keroog ngir mbir doy waaru alhamdulillahi rabbil aalamiin la xam ku moom gis ba fii xël am nga lan moom rek mooy ki fi dox quraanu ak jawar ci bind ak jàng ak sakkal ko ay dëru imaamu naa mooy imaamal aarifiina billah wal qutbu wal xawsu wal axyaaru axyaaru mahruufu jaylaani wal busaamu tayfooru suman xasaaliyu yay si mbir ma doy ay wu fi am yaa ko fay Makka ma diina fu mu jommal sëri bii demal laaj ëhlu gànnaaru maa ngi taxawlu di ñaan buur yàlla am ngërëmam noon boole sun kuy jullit duniyaa wa xuraaw Cheikh Moustapha lii mu laajoon moo di ñaar fukk nag yu teg juróom ñett sëñ Fallou di kànne na gaaw Cheikh Moustapha lii mu laajoon moo di ñaar fukk nag yu teg juróom-ñett sëñ Fallou dikkaat ne na gaaw Cheikh Abdou Lahat yokku tey jii nag jumaa ji fu ne Cheikh Abdou Khadir da cee saf lim fi toog dafa néew sëñ Saliou dikk ful milliards yi bam bari lool fulaat jumaa yi te lu mu wax ñëpp bokk na waaw sëñ Baara ñëw dal na Touba ak Makka ak ñoo war di yam tëli pencam yi yëpp wannu gannaaw Cheikh Sidi Muxtaar Cheikh Sidi Muxtaar bu dikkee saf ca sa son kuyul war a gaaw Cheikh Sidi Muxtaar bu dikkee saf ca lañ fi sa son kuyul mbiram ci Sëriñ Tuuba da cee war gaaw ña di nga ton ñee ñoo di nga kile te du tee lim sumbu yegg lu am ay donq faw mu naaw ña diŋatam ñee nag ñoo diŋat kile du tee lim sumb yegg lu ay donq faw mu naaw yilif na tuubaa te toog toogaa yi bi taxaw ci liy defar dëkk bi kuy soxla yi dana teew mooy sama tànk di say bët raw na porte parole doonu parlement doon ndam loola fal na ko daaw Cheikh Sidi Muxtaar ne mooy sama tànk di say bët raw na porte parole doonu parlement doon ndam loola fal na ko daaw Cheikh Bass du wax lu ñu naan du yoon yi moo ko gënal boppam tanjuum teem amul mbaa boo xanaa dana néew moom innamaa yahmaru ji yàlla wax ca la ne amana lam yaxsa illa llaaha junna salaaw andi samaani bisil baqaayi xaadima wax tànki kanam rek la am nee moom amul yu gannaaw sëriñ Abdou Khadir Mbakke mooy wooteel ay waleen ku yor bor na ñëw fay tay te sëñ bii le bal na leen sëriñ Abdou Khadir Mbakke mooy woote ay waleen ku am bor na ñëw fay kat te sëñ bii le bal na leen sëriñ Abdou Khadir Mbakke mooy woote ay waleen ku yor bor na ñëw fay tay te sëñ bii le bal na leen ku lee tudd danga koy u nee tëdd danga ko woo julleeg tàdd woo xanaa bor bi leer na leen te seex jili sunus Mustafa nim ci sonne woon bisam mooy ajiboo de yallaahi dong yéen te seex jili sunus Mustafa nim ci sonne woon bisam mooy ajiboo de yallaahi dong yéen waman laa yujib daain walay saat bi moo ji sin ceeg riir gu leer lay nekk bañ leen ko wuy di leen ku ñëw yàlla na am wér gudd fan mucc gu baax te yàlla nay giseek seex bamba bis penc gis yonen sëñ Moustapha sëñ seex dene kaddu gaa ngi nii te loo wax de mooy lam wax waxal gaa ñi déglu leen sëriñ Moustapha sëñ seex dene kaddu gaa ngi nii te loo wax de mooy lam wax waxal gaa ñi yaa ahla Karni am ngeen fi kenn ku nekk kenn muy seexu jiili yaa ahla Karni am ngeen fi kenn ku nekk kenn muy seexu jiili moo doon imaam ja kay doomi daam ja ka doon maam ja muy seexu jiili moo doon imaam ja kay doomi daam ja ka doon maam ja mooy seexu jiili moo doon imaam ja kay doomi daam ja ka doon maam ja mooy seexu jiili al istixaama jikkum la ndaama bindam ba daama di kat di jiili tawxiid ju koojul sunna su méjjul ak xol bu bakkul kenn du ci jiili du takki gàllaaj du jànni kuy laaj duulul ku ñuy ñaaj moom seexu jiili du takki gàllaaj du jànni kuy laaj duulul ku ñuy ñaaj moom seexu jiili du takki téere du xob du cëwri du ñaan lu bay rek moom seexu jiili du takk ay xaaw du tiimi petaaw du ñaan ci luy naaw sànni ko jiili du ñaan ci xomb du sangu xamb diineem la xamb moom seexi jiili du takk ak fas du sarxe aw fas ngir jublu caa fas lenn de jiili du taaji njaq ñu di ko séq du sarxe séq ngir fegu jiili du danki nakk ngir na fi nekk moo tax ku nekk warmal na jiili du xëy wi ndox jël bi jënam sax du faylu ay wax moom seexu jiili du leb du leble day may du able gàddoo ko tayle du jikko jiili du wut xar yar def ko ci biir kër foog ne da koy aar ci lenn jiili buy muslu yi cat du mocca kay jat du ñaan ngir jot bakkan ba jiili laa wax ci jiili taxul ma jeele takku ko boole amul ci jiili yi yaar fukki mbir ku wëri sa daw dem ba ngir sooru jiili day mujj daw ni bàyyi naa yow kii yoon bi muy aw wéet na ci jiili tawhid ju sell sax tani cell ba jàll jàlle ma woon ca jiili tawhid ju sell sax tani cell ba jàll jàlle ma woon ci jiili allahu rabbul alamin sunu borom defal la ci lu kawe sa njort fekk na booba nu yëkkati sunu kaddu jotaat ci ndigal kaddu yi ni yëkkati muy ndigal waaye noonu kaddu yi sant lay doon ci taalibe yi Serigne Touba yëpp ndax taalibe yi sunu borom may taw féexe ñu jamonoon te yow sunu borom dafa def ak cofeel ci seeni xol ci sa jëmm te sama classe bi nga xam ne fu bari danañ ko wër ci àdduna bi xam na ne taalibe Serigne Touba yi la ci ëpp lépp dañ laa ëmbal ak cofeel ak naw la ak ànd ak yow la ngay Sëriñ Tuubaa bi nga nekk ndax taxawaay bu am solo bii nga xam ne taxawee nga ko waaye dañ ca boole di ñaanal jamono bu nekk suñu borom kattanal la wéral la ba nga mott bi dama waxoon léegi ne Sëriñ Tuubaa day ba muy wax ci nooru daara ni dafa waxoon ne sama borom de jamono bu nekk dana ma wutal koo xam ne day wenam loo ñi may bañ ak di ma wet di ma dingat jamono bu te loola aw lay rëy woo xam ne sa taxawaay matale na ko wax naa fi léegi ne barki démb bii Mourchid Ayane Thiam di wax ci benn jotaay bi mu bokkoon ci Dakar ci télévision mu wax ne amirul muminin baat la boo xam ne ku ko bëgg a jàppe ci maanaam arab mi mën naa diis waaye nee na mooy Cheikh Sidi Muxtaar amirul muminin daal di wax ne coobare yàlla nag wet bu nekk lay bàyyi ko yàlla lay defee maa tey ndax yafalu maa yashaa kon lu tax mu def ko ak lu tax mu mel ni ak maa ko fi jiitoog noo bokk nee na teewul cërub yàlla woy loola nag moo nekk ci sa taxawaay bi Mbakke lëggéey bu rëy bii nga yem taalibe yépp a war a bokk boole di la ñaanal man de wax naa léegi ne bu sëñ bi waxee ni sëriñ Cheikh Mahamadul Bachir mooy samay bët di samay loxo di samay tànk damay wax ne nun kenn ku ne ci nun yaa ngi wuti weer ngir protéger lu tàbbi ci say bët te bëti sëñ bi gën a suñuy bët ndax fa muy xool mënuñu koo gis ndax moo ñuy xoolal fi ñuy jaar kon benn taalibe bu nekk la war ca moom mooy mu fexe ba lépp luy fatt bëti sëñ bi nga jóg taxaw ci loolu nag moo tax ñëpp maase nekk sa ginnaaw ngir bàyyi loola xel liggéeyu sëriñ bi it kenn ku nekk xam taxawaay bu yi bi nga ci taxaw ak yaatal bi nga ko yaatal ñett rek la ñuy jëflanteel te ñett ñu ngi ñin war a jëflanteel ñëpp kenn ku nekk seere na ak cantam ci yow mm-hmm. muy koo xam ne moo la mag ak koo xam ne yaa ko mag ak koo maase ñi la féete mag ñëpp sant nañ la doy na ci Cheikh Sidi Moutar ñi nga bokkul Sëñ Tuubaa ñëpp mbooleem koo xam ne yaa ko féeteeg mag it yërëb nga ko taxawu nga ko wan nga ko aw yoon képp ku yàlla dogal nga maase yi def nga ko ni sa bopp wàcce sa bopp ci ñëpp yitte ñëpp ñor na li gën a jafe mooy yoon wi moo la ñor ba képp ku ci yëngu rek ñor na la ndax fii ne kenn ku ne ci ñuy yëngu ci yoon wi ak wet goo ca mën a doxe jamono bu nekk moo lay soññil boppam moo lay ñaanalal boppam moo lay gërëmal boppam kon noo koy ñaanal yàlla yàggal ko fi te saxal ndax kat sëñ Cheikh Abdou Barki dem daf may ree ci Dakar ma ne ku yàlla dogal ne amoo gaasuwaal kenn du la jox benn liggéey ndax ku la yónni ndakaaru ngay laaj gaasuwaal kenn wuru la yónni Dakar koo xam ne mbubb ya nga yore kenn fóotu ko kenn du la dénk benn liggéey kuy martu it kenn du ko séddale loolu maanaam ku réggagul bay martu kenn du ko séddale loolu ndax ndab lu mu teg day taxaw ca kanam ñam ko jox di martu ci ñoom boobaa sax seen i yaram dana daw ba dañ naan suur nañu te fekk suur kon yow mi taxawee liggéeyu Serigne Touba bi yal na la yàlla kattan te dëggal la noonu nag noo ngi nekk sa ginnaaw wax naa léegi ne nan jàpp Cheikh Mouhamadul Bachir ngir sëñ Touba ndax jàpp na tali bi sëñ Touba yi ngir sëñ Touba ndax tey jii Gana Messere ku xeebu la bu génnoon ci mbedd mi benn waaye na Gana nangam am ku ko mu jaral ko xeex ak moom te teraangay sëñ Touba ji waroon na ko lekk di ko bàyyeeg noonam yi moom sëñ Touba wax naa fii léegi ne bu newoon kaddu gi sëñ Touba ci wéeru ñu di ko ŋarañ kenn ku nekk di ko yóbbu di ko barkeeloo mbub mi sëñ Tuubaa ko laaloon des koy barkeeloo mbooleem nu kadd màgge gu sëñ Tuubaa jaaroon nag deret di sëñ ko gën a foor te nit moom mënta màgg ba weesu diw ñu ne way juróom ñu ne Cheikh Xadim loolu kon màggal la kon nañ màggal waa kër sëñ te jox leen seen waroon na te xam ne lu wax noona la yar ak teggi na sëñ Bachiru lu ne lay dëkk waaye du lenn taxu de sëñ Tuubaa rek man damaa jàng ci moom bàyyi fayu sama bopp ndax damaa wax tey bu dee dara ja da cee bokk sëñ Abdou Khadir yi way juróom doyoon na sëkk waaye ngir sëñ Tuubaa am ndam moom jaral na ko ku nekk jam ko lu la neex hmm. waaye dara la ko muñal waaye dalay wóor na nag bu dee yàgg mooma diine jëmu ko ak bokk jëmu ko yoon wi mu bokk jëmu ko mu si xamal si loolu kenn ku nekk xamal am jom ju toll nii bee ko jaral bët bu set ku ko wërta di ko joxoñ moom it nanu jaral nuy ñu taxaw rek lu ko joxoñ ñu taxaw protéger la ñu joxoñ la war man nag foofu laa nekk te kenn mënu ma jële ku ne ko xoos daal nee naa leen ku ne ko xoos danaa ne la xaraas xaraas xaraas xaraas xaraas ñeenti yoon ndax sëñ Tuubaa rek la fi nekkal te sëñ Tuubaa la ñu ñaan kon wasalaamaaleykum wa rahmatulah. yaram ñu sol ko si lépp lu ñu xam ne dañ koy dagal ñaan sama borom lépp loo xam ne yëpp taalibe yi nga xam ne ñoo nañu fi sàkk nañ ko si bés bii suñu borom defal nañ ko ci. sëriñ bi dañ ñëwaat ren ni ñu koy defee at mu nekk. di sant bi ñu yàlla dimbalee bañ bañ fekkewaat ko ren ak kontaante gu rëy ñëw sa kanam la jébbal liggéey bi nga xam ne fédération bi nga xam ne mooy sa daayir yi nekk biir Sénégal yëpp ñoo si yëngu ñoo la ko si ndéglu suñu laaj bu sóob mi nga xam ne moom nga teg suñ kanam waaw si kanam si ndigalu sëriñ Alaaji Bousso mi nga xam ne moom nga teg si kanam mbooloo mi waxtaan wi nag daanaka si ñetti fànn na lay taxawee bu njëkk bi mooy dañuy leeral fédération bi bi si tege mooy soññu mbokk taalibe si liggéey bi bi su mujj nekk ak cant goo xam ne taalibe ñu nañu ko jëmale si yow. fédération bi nag ñu nga xam ne moom moo ko tax a jóg muy sa ndigal loo xam ne si lañ ko sosee. mooy ngir tënk sa taalibe boo xam ne aju na si yow nostans génn buum ngir lépp loo xam ne yaa ngi ci ñu jàpp ci duñu wax sax ne jàppal la si wante ñu jàpp si ndax xam nañ ne euh, foo joxoñ fa la sëñ Tuubaa joxoñ ni muy doxee mooy dafa am lu ñuy wax kuréel fédération nationale nga xam ne dafay tënk dafay tënk daayira yi nga xam ne dafa nekk Sénégal yëpp nga xam ne si yow laa région boo xam ne nekk na Sénégal ren région bu nekk Sénégal rek am na koo xam ne moom lañ fa moom lañ fa jiital kooku dinaa bàyyi sëñ Modou Fall suñu ne ko leeral ba si nekk bitim réew ñu ngi nekk Italie ñu nekk Espagne rek fépp fu si nekk am na kilifa gu am na am na am na jëriñ du fa nekk moo tax ñu bëgg a leeral mbokk taalibe yi ne fépp foo xam ne taalibe sañ mu nga fa mu na nemmee ko nga xam ne moo ko fa toogal ngir liggéey mi nga xam ne fédération bi da koy da koy da koy da koy da koy da koy da koy defal nga mun see tàbbi loolu mooy li nga xam ne fédération bi nag euh, Alaaji Bousso moom mooy mooy mooy suñu jëriñu ñëpp gannaaw gi am na président ak secrétaire général ak euh, région bu nekk jëwriñ lañu fa jiital mooy président fédéral mooy président daayira ba fa li nga xam ne bëgg nañu ko leeral mbokku taalibe mooy fépp foo xam ne taalibe yi nekk na fa soo xamul ko fa nekk na nga jokkoo ak secrétaire général bi nga xam ne mooy fédération bi dina la xam ka nga xam ne moo fa nekkal sëriñ bi su fekkee ne nag yàlla dafa defit loo taxawu fa ñun nañ dox suñu tànk ñëw taxawal ko ndax liggéey bi kat daane dafa war a dafa war a mat euh, dafa war a mat ndax liggéey sëñ Tuubaa moom warul dellu ginnaaw te it euh, yàlla ñuy dimbali bi sëñ bi tosee ba léegi euh, région yëpp daanaka taxaw na wante des na massification bi des na massification boobu nag ñun ñu ñëpp daf dafa nekk war suñu liggéey loolu mooy li nga xam ne moom lañu euh, amoon lu ñuy wax si waa wàllu fédération bi leneen léeg si mbokk taalibe yi laa ko jëmale liggéey bi ñuy def dañ siy sant mbokk taalibe yëpp ñu si ñu si tàbbi leen xamoon nag duñ leen sant dawal góor lañ leen di wax ndax liggéey sëñ Tuubaa kat ku ko def sa bopp nga ko defal te ñun ñëpp ku si nekk xam nga ne sëñ Tuubaa leen defal sa baay mënu ko si yow sa ndey mënu ko si yow keneen ku dul moom mënu ko si yow bon nag li ñu ko defal nii bu ñu ko yéem bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko xool dañuy laxasaayu kat lépp loo xam ne def nañ ko ni yaakaar nañ ñu ñu jàpp ne defuñ dara ndax kat man taasaan naa si waxi sëriñ bi mun mu naan sëñ Tuubaa daa doon liggéeyal ba sama maas raw nañ ma mosu koo nopp mosu koo dégg ba mosu koo gis kuy liggéey sëñ Tuubaa noonu tey da ngaa lu lu lu lu lu lu dellu ginnaaw ma soo yëgee dabe niñ ko waxee ñu xam ne ñu xam ne liggéey ñu xam ne liggéey liggéey bi taw feex la ko xam ne suñu taw taw taw feex la nga koy liggéeyal war nga sant yàlla ndax ñu ngi taataan si wax ñu baax ñu ne ki nga xam ne kat mooy suñ jëriñ si yoon muy maam Cheikh nee na am na bërëb boo xam ne fan mu sa toog ak sëñ bi sa ësël fekk sëñ Tuubaa jugru jaam yi ne ko maam Cheikh mu ne ko Mbàkke mu ne kaay ñu tànn ñu ñu àndal mu ne keneen képp koo xam ne jébbalu ma sëñ Tuubaa keneen na tànn am gërëm sëñ Tuubaa keneen tànn sax ñu xam ne liggéey sëñ Tuubaa nekkul nekkul ku nekk lañ ko lañ ko jagleel loolu lu jara lu jara lu jara bàyyi xel la képp koo xam ne yàlla dimbale ba nga liggéey sëñ Tuubaa xamul ne ak jagle la loolu moom suñu mbokk taalibe yi dañu leen soññ si liggéey bi ñu xam ne liggéey bi lu ñu si def rek nañ ko xeeb lu ñu si def rek nañ ko xeeb ndax sëñ bi ñu àndal kat euh, yaakaar na ne ku yàlla dimbali ba nga ànd ak moom euh, nga xam ne lépp lu lépp lépp loo ko si liggéey suñu toile da koy def war ngaa war ngaa war ngaa war ngaa war ngaa laxasaay waat fu mu toll pour ànd ak moom si liggéey boobu bon gannaaw sant yi ñu sant taalibe si liggéey bi ñu si def cant gi ñu si teg mooy mooy mooy sant sëriñ bi sëriñ bi ñun ñi ñëpp ku ci nekk xam nga ne taxaw na lu taxaw boo xam ne keneen ku dul moom dafa ko si yow. muy si saay ak si baatin si saay ak si baatin laa wax nag sëriñ bi taalibe yi ñu lay sant di la gërëm di la di la di la tatakal di la ñaanalit liggéey bi nga xam ne sëriñ daf la ko jox yàlla defal lu si lu koy sa jox defal la si gudd fan gu wér ak wér gu yaram defal la si defal la si defal la si defal la si defal si li nga xam ne euh, mooy mbébétu murit yi ndax murit yëpp màkke te dañ lay sagoo te sag googu dañ dañ dañ dañ ñaan mu dakk dañ dañ ñaan mu mu sax euh, dakk si kàddu yooyu nag si lay si laay tëjee sama sama wax euh, di di di di di di sant di gërëm Euh, di ñaan it yàlla fekkee ñëw ak ba déwén waxtu wi ñu fi nekk ñëpp sama borom fekkee leen ko te màggal gi it la nga xam ne waxoon nañ ko si sëñ ba mu ganee ba mu ganee àddina sëriñ bi ñu ko defal suñu borom képp ku fi ñëw mu defal la ko ñu ngi sant di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu nuyoo boobu nag ñoo ngi ci jiitu sunu sëriñ sunu wasiila sunu buntu ci kër Sëriñ Abdou Khadre di Cheikh Mouhamadou Bachir moom Cheikh Abdou Khadre Mbacké mi toog di ñaan yàlla sama borom mi dara tëwul suñu borom yàggal ko fi te wéral ko te yëggale ay naalam te yëggale ay wéetam ndax Mbàkke kat mbooleem sa mag yi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñi nga tollool ci ay at nga xam ne seen kilifa seen nga ak mbooleem nu ñuy tey bi suñu tuwaay kenn ku ne am na ci yow yaakaar te loolu li ko mooy sa jukkoo ak saw doxeen kon Mbàkke maa ngi lay nuyu ci turu taalibe yi taalibe yi nga xam ne mën naa fa wax ne ñetti xaaj lañu ndax ñaane ñi sopp Sëriñ Tuubaa moo tax fuñ fa fuñ baaxal ñu jóg seen dem ba ak jëf ak sa taalibe bëgg Sëriñ Tuubaa ñu xool ko ci yow ci lépp ñu ñëw di ci barke borom bi kon Cheikh Abdou Khadre Mbacké Cheikh Mouhamadou Bachir maa ngi lay nuyu ci turu taalibe bi ci sama kàddu nag boo xam maa koy wax ci turu taalibe bi sëriñ bi noo ngi la wax waat doolee boolee suñu bopp jox la dénk la ko nanu ko dénkee woon nga xam ne na la wóor ne sa taalibe yii am na lu may seede ci ñoom loo xam ne lu ma leer lay doon mooy xam naa ci ñoom ne day lu sopp la ak bëgg la defuñu ko loolu leen mën di rek soo ne sëriñ bi nee na rek loolu moom bala ngaa xam mbaa xeppe rek bu lu ñuy def def nañ ko ko ñuy def jëm nañ ma di la seereel ne mbooleem ñi may wax ñi bokk ci daayira bi yëpp te di ay taalibe te saxoo ci kër gi xam nañ li may wax mooy ñun ñi nga xam ne ay mag lañ yi nekk ci seen kanam noppal nañ na ci lu bari lool ndax bari na yoo xam ne day mënoon naa yegsi te yegsiwu te ñoo ko jóg ndax li koo xam ne dafa sax ci ak taalibe sax ci jub nangoo liggéey di daan seen doole di daan seen ñax foo seen lu leen yëpp addi Serigne Touba rek la ñuy sàkku lu ñu lay yëg ak lu ñu yéene seen njaboot loolu moom mën naa ko seen sa taalibe wax yi Serigne Gana Ndiaye bii nga teg suñu kanam it bi rafet na ndax lu bëree bëri noppalu nañ ci te ak jàpp ak jàppale rek bàkki moo ko waral kon nag noo ngi lay seeral la sa bi yi nga xam ne seen ak seen bëgg-bëgg lépp mooy ñaan yan bii nga xamante ne suñu borom yan na la ko fa bëgg a yéene fa nga bëgg a yéegale nga yeggale ko mbagg yàlla nag dara tëwu ko maa ngi ñaan di sax ko boole taalibe yi fu waaye dégg sama kàddu kenn ku ne na ñaan ci xolam Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko te yeggale yéeneem yeggale ay naanam noonu ne Mbacké suñu xol suñu xol sedd na suñu xel dara dina ndax lu suñu xol seddee mooy doxee wi bi ngay dox suñu xel sedd na ci buy ndax wóor nañu kenn mënoo tudd di la waxtaane ba seen sa benn taalibe noppi ndax say jëfin ak sa jukko ndax dama leen di wax ne man day Cheikh Mouhamadou Bassirou ànd gi ma ànd ak moom ba ñu bari xam ko budul woon dara yaar jaaru naa ko ndax ku ànd ak yow ku ne yaar moom dana ko ko war la mooy tabe ak jukko ju rafet Cheikh Mouhamadou Bassirou lu mu lu mu joxewul da ko ëmb te ëmbalul kenn dara nii nga ko gisee tey boo taxoon fukki at te yàlla ko nan bàyyi na fi boo gisee naa ngi ko koy fekk kon nag Mbàkke loolu yàlla na sax sa yar daal li ci yéene ak a yëngu na ko yàlla ak yéen sëñ Tuubaa doon ne dimbali ba nga yegg ba nga ko dala xamal na Mbàkke tali bi yaa nii nun di Mbàkke dañoo am lu dul yow lu dul yow amuñu fu mu jëm te wutuñu fu mu jëm te bëgguñoo jëm fenn fu dul ci sabab ji rek doon ay taalibe fas yéene sax ci ndigal fas lépp loo xam ne dañ koy tere di ci seen kon nag ñun taalibe bi li ñu war a dimbalee sëriñ bi nan sax ci nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla te noppal sëriñ bi bu dugg ci benn lañ moo xam ne dañ naan dañ naan la sëriñ bi la jënd ji ndax kër si ñëpp dafay defee ci bokk am nga aw sas war ngaa nangoo jaamu yàlla war ngaa nangoo liggéey war ngaa rafet rafet jikko war ngaa doon ab tab war ngaa mën a jéggale ndax jëmmi Sëriñ bu xaar ndax moom noonu la meloon kon nag moom mii nga xam ne moo fi nekk di sunu di sunu roy waay ngar la noonu daale day nanu góorgóorlu ba fu nu seen ñu nekkee tamit sëñ Mouhamed Bassirou Cheikh Abdou Khadre Mbacké la ñu doon roy waay ndax moom nga roy waay la gannaaw roy waay la nag nun ay taalibe nan ci xeeboon ay roy waay kon Mbacké maa ngi lay doon di taalibe ndax dégg du doy nga doon leen jàpp doon leen dimbale doon leen taxawu ñaanal leen ci ci ci ci baatin dimbali leen ci saay ba lépp loo xam ne yéene nañ ko fas ko yéene liggéey ngir jëmmi Cheikh Abdou Khadre Mbacké ngir jëmmi sa kër gii ngir jëmmi Serigne Touba nu àgg te àggale ko te nga àgg te àggale ci dara ji Serigne Touba Mouhamed barke Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadimou Rassoul barke Cheikh Abdou Khadre Mbacké mii suñu bëgg Serigne Touba yàlla na fi yàlla yàggal te wéral la te aar la bët bu aay làmmiñ seytaane ak rawat jinne kayabe lépp yàlla na ci Serigne Touba aar di jëy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke Serigne Touba Khadimou Rassoul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala lu ci des ki man la waaye tali ni moom ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di tënk ndax liñ fi waroon a wax lépp leeral nañ ko waaye dafa tolloog ne dafa am niñ ko waxee sëriñ bi nit ñi dañ ko bëgg te sëriñ Tuubaa tax ba tax na su wootee ñëpp dañuy ñëw di ko jéem fay borom ndax mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ak mbooleem ñi nga xam ne dañoo yor ay jumtukaay yoo xam ne nit ñun dañ koy soxla ci liggéey bi dañoo ñëw ànd ak ñun ci bis bi te sëñ Abdoulaye dafa waxoon ne sëñ Touba moom képp ku ko defal murid yi ñoom ñoo la war a sant waaye sëñ Basit képp ku ko defal ci màggal gi ñun taalibe yi ñu ñoo la war a sant te sant bi li ci ëpp solo mooy ci kanamam lañ koy defee moo tax lu mu xat-xat rek faw su sëriñ bi teewee ñu leeral ko ndax moom gis na ñëpp xam na lépp te jëflante na am ñoom waaye loolu dafa dafa rafet kon mu mel ne dañuy sant rek daayira yi nga xam ne euh, ginnaaw bi nga xam ne sëñ Modou Fall sant na daayira yi fi teew te aju ci fédération bi ñeneen ñi nga xam ne it wax dëgg ñoo ànd ak fédération bi màggal gi ba màggal gi jage nii ñooñu yàlla na ñu sant leen ndax ñenn ñi ñi kenn ku ci ne yaa fa nga nekk di liggéey mu mel ne daayira yooyu bokk na ci ñi nga xam ne euh, mooy xidmatul euh, al amin ak wakaana xaqan ak xaadimatul munaajaat ak mafaatihul bichri ak maayabul bichri ñoom ñëpp nag euh, maayabul naafian ñu jéggal ma te ñoom ñëpp ñi ngi nekk caaro yi gaar ànd ak sëriñ xaadim sàmb ñu ñëw teew fi jàpp ci bis bi bu baax a baax a baax su loolu jàllee it waa maayabul ak yaas bi nga xam ne moo lëkkale mboolem daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci université yi ak lycée yi te sëriñ bi dénk leen li nga xam ne moo jëm ci durusu màggal gi ñoom it teew nañ ren it wax dëgg ñoom ñoo ñëw jël exposition bi jàpp ci waaw te exposition bi de suba moom lañ fas yéene yendoo te lépp jëm ci dund ak liggéey sëñ Abdou Khader ndax loolu it am na solo ci bis bi ndax liñ bëgg mooy ku ñëw ci màggal gi ñu la berndeel berndeel maanaam nga jëlee fi tamit xam-xam boo xam ne soo demee di nga ci mën a roy moo tax exposition bi lu am solo la te ñi ngi soññ ci taalibe yëpp bu subaa ñu teew ci ndax ñoom it dina ànd ak ay commentaire ak yëpp te Mayabul Akyaas boobu it sëñ Mamadou Niang moom moo ko jiite waa daayira Limaamu Laay teew nañ fi su loolu jàllee ñuy sant sëñ gànn Messere mi doon def waxtaan wi te laata muy tàmbali sëñ Mamour Mbaye ubbi fi ubbi fu am solo te nekk Touba TV moom it sëñ Cheikh Diop mi doon modéré débat bi moom it ñu ngi koy sant bu baax baax a baax beneen bi ñu jëm ci presse bi rek daal di koy tënk kon mel na ne ñi fi teew mooy ak ah, Bichri TV teew na fi eh, RDV it wax dëgg teew nañ fi ba écran yi fi ñëw it wax dëgg ñu indi ko ngir jàpp ci bis bi Baol Média ci njiitu Modou Diop Thiat nga xam ne moom it taalibe la ci kër gi teew na fi ah Dakar Actu nga xam ne moom it Serigne Diagne moom moo ko jiite teew na fi eh, Touba Vision nga xam ne sëñ Xaadim Fall moom moo ko jiite eh, sëñ Xaadim Seck moom moo ko jiite moom it teew na fi Touba TV ànd naa directeur am ñu koy wax sëñ Jibi Ndaw ñoom ñëpp teew nañ fi sëñ Alemane in na fi wax dëgg écran géant ak équipe boo xam ne fi mu nekk nii ñun ñoo nekk di liggéeyandoo sëñ Jili Ñang bu euh, TFM it wax dëgg teew na fi te si suba ba tey wax dëgg mu ngi liggéey ci biir loolu yëpp buñ ko dajalee ndax ci suba ba tey ak bisub suba bi dañoo fas yéene lépp luy daw fii rek wax dëgg fi yàlla mi ngi daw direct ci internet bi ndax am na ñoo xam ne nekkuñ fi waaye dañoo bëgg dund bis bi ànd koog ñun te lu àdduna bi sori sori sëriñ bi taxañ na ko ba nga xam ne fenn fu waay toll rek mi ngi dund ak ñun bis ci bu baax a baax a baax ah. kon loolu ñu ngi ciy sant bu baax a baax kon loolu rek lañ doon seereel lañ doon seere ci kanamu sëriñ bi su ko jafee ñu jox kàddu bi sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñun ñu ci teew di màggalu Cheikh Abdoul Khadr dellu si waat ci li ci Sëriñ Tuubaa waxoon ñëpp xam nañ ko te takkaraar boo ko ci balaa la kon li ñuy jiitu li ñuy wax rek yóbbaale na kàddu yi moom kàddu yi cant lay doon ak yu gërëm ndax wax lu ànd ak jëf fu jëf taxawee rek wax daa dem kon yéen lii ngeen def jëlee ko ngir yàlla ak jëlee Sëriñ Tuubaa moom mi tax ngeen di bëgg a teg na ci moom te nii ngeen ko jëlee ci màggal gi itam mboolem lu xew lu ne noonu ngeen koy defee tàmbalee ko ci koor gi ci tabaski bi màggal gi màggal Tuubaa ba ci gàmmu bi wala leneen lu gën a lu ci ne lu jamono xat-xat da ngeen ci góorgóor def ca la man ak la ngeen doon kon nag loolu seenu cant moom dañ koy bàyyi ki tax ngeen di def te moom dara ëmb ci moom lépp tëdd ci bëtam di rafetlu pëstéef bi ak taxawaay bi ndax mbirum Sëñ Tuubaa dafa moom la tooye lépp loo ci tàmbali lu mu jëm ca kanam rek xamal ne borom moo ko ko waaye lépp loo ci tàmbali mu deltu ginnaaw rek xamal ne Sëriñ Tuubaa ak ci kon nag ci nañu ko tàmbalee ba tey at mu jot bu ngeen xaar ma sonn dem ndax màggal bi tàmbali na ko mu jeex wóobu ma ci sa yëgal na ko ci coono yi ak ku ci def nga sa gisu bopp def ko sa yite moom def koy ngir jëm si suñu Tuubaa def koy ngir jëm si Cheikh Abdou Khadim bu ñu defoon ci suñu kon ñi ñaan ci dara jàmm rek yàlla na suñu borom fay na ko oto suñu borom yitte ñu waaye àndaale woon ci bisum tedd bi itam lu mu mën a yàlla na suñu Tuubaa fajal na ko te rafet nañ yor ci ne bis bi àttan na ndax Sëriñ Tuubaa lépp loo xam ne waxoon na ko rek wax ju sar lay doon ndax inna lazina ida zarzara taqasadu ziyaarati faarqu daari law zaara martaba la boo xam ne fa ko suñu borom joxe képp àdduna tukki boo demaatee ci lu bari ci ay ndigal daa ngay fekk mu ñaan suñu borom ne ko képp koo xam ne siyaare seen rek na nga faj aajo bi te na ko tàggale ay bàkkaar kon nag li mu déeréwu daayoo ci bis bii du bisu Cheikh Abdou Khadir ma leen wóor ne baat bi tukki saa su accepté dañuy Sëriñ Tuubaa daal yoon ñëpp la jëriñoo kon nag sant nañ leen bu baax gërëm nañ itam mboolem daayira yëpp ci fu a nekk ci réew mi ci réew mi ci mën ma ko sant Alaaji Fàllu Buso moom ànd ko yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci kanam tàmbalee ko ci jiiri sawu ba ci Malick Diop Xaadim Ndiaye Assane Omar Fall ñu ci des ñëpp ndax moo ko liggéey dama jóg waaye fu ci daayira nekk ci Sénégal ci région yëpp Cheikh Saw Kaolack ak Alpha Diop daayira ñëpp daal ñu ngi ko liggéey bàyyiwoo ci xel kenn ku ci ne na ngeen xam ne waxtu rek suñu xel ci yéen ñu ngi leen bu baax a baax itam lii ñu ñaanal taalibe Sëriñ Tuubaa ndax yàlla dafa def man xaamiwu ma ki ki ki sukk jébbalu ci man ak gis suñu jëmbu ci ndax kenn amul taal taal yi taal si doole ndax kenn koo yaakaar si doole yaakaar kon nag képp ku gis rek ñu ngi si doole ñu xool ci moom loolu lay tam rek képp koo xam ne bokk nga Sëriñ Tuubaa ku ne foofee rek nga ndax Sëriñ Tuubaa kat war a jaar ne li nga ñaanal bokk li aju ci man moom laay ñaan yokk ci ñun njëriñu ci man loolu rek mosuñoo di génn kii di la génn ci àdduna bu ko wax kon nag képp koo xam ne taalibu Sëriñ Tuubaa la war ngaa fexe ba foo gisee taalibu Sëriñ Tuubaa cee xàmmee ne kii wala kee koo ci gis rek di xool ñu Sëriñ Tuubaa ci moom kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan yàlla day cee tawfeex day danañ cee gërëmu suñu Tuubaa danañ cee faju aajo te gërëmu suñu bi rek cëram lépp rek ndax mooy ngërëmu suñu borom wa ridwaanu llaahi akbar zaalika huwal fawzul aziim wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh وقلبك ومجاي بسنة مسلة تمام